salaamaaleykum amateur de foot yi nuyu leen ku ci nekk seen tur ak seen sant xibaar tey di mai 2024 ci wàllu tàggat yaram deuxième vidéo bi nan wax tey ci euh, FC Barcelone ak Xavi Simone mi nga xam ne vraiment jot na ko bëgg waaye et tant d'autres xibaar yoo xam ne jot na tey ci ay blessures rek ñoom seen valet va valet va <laughs> jour Napoli bi turam bi daf may xaw a rëcc quoi warat kilia tey moom juumuma wax naa ko mu normal mu ngi noonee waaye di leen leeral que ni euh, kookee euh, ñu naan ko Enrique euh, jamono ji mu ngi jéem a xëccoo Barça ak kookee ñu naan ko warat kilia mi nga xam ne Barça sori woon na ci lool ngir war koo mën a jënd mais jamono ji Paris Saint-Germain mbébétam mooy jéem a suufu Barça jël jour boobee nga xam ne ailier la mu doon jour bu mën a football loola lool lool lool waaye xamuñu nag nan lay mujjee. ak kan moo koy mujjee jël ba caal ba tey nag li indiqué mu ngi intéressé wu ci kooku di Bernardo Silva waaye dafa bëgg a garder Xavi Simons dinaa ñëw baax saa na la nar a mujjee ak kooke ñu naan ko. Savisuman, le PSG, euh, PSV ne déclenchera pas son option d'achat de Serge Donex en région de sa longue blessure PSV Eindhoven moom nag nangu la déclenché option d'achat bi nga xam ne moom lañ ko aale woon kooku yi ñu naan ko Serge Donex pour mu war ko mën a moom définitivement nag blessure bu yàgg bi nga xam ne euh, Donex moomee jot na ko am kii blessé nag mu yéem ñëpp muy kan Serge Gnabry moom moo nekk foofee ca Bayern mi doon allemand ñu ngi sikki sàkk ba xam sax est-ce que. euro bi dina ko football mu doon loo xam ne si une mauvaise nouvelle euh, pour lui et l'Allemagne kookee di Sergi euh, des mi nga xam ne dafa am loolee ñu naan ko euh, déchirure à l'ischio jambe jambe gauche jambier gauche moom la am Euh, mu ngi noonu ne déchirure boobee moom moom la am mu doon joueur boo xam ne nii ku amoon importance bu baax a baax kookee di Valverde nag nee na mu am euh, mën naa ni loole di coupe euh, Copa America bi ak Uruguay moom daal moom koy gën a jafe moo gën a jafe pour mu am teg tegle de Ligue des champions am ko loolu la wax nee na. mu am deux Ligue des champions moo gën a yomb lool mu am benn loole di Copa America c'est très difficile pour mu am ko ak kookee di Uruguay moom daal loolu yéenam la te bëgg na ko am mu doon joueur boo xam ne nii moom it ko am avenir la euh, kookee euh, ñu naan ko euh, mën naa ni Valverde Arteta nag wax na ci Premier League bi nee na mu gis xar kanamu ay joueuram ñu ànd ak mbégte bañ jëlee lii di Premier League bi dina doon loo xam ne dina ko neex loole nag doon na loo xam ne c'est pas donné à n'importe qui joueur bu ne ñaan yàlla jël ko nag moom mu ngi souhaité ñoom ñu jël ko ci jàmm ak ngir mën a indil mbégte ay joueur am ñoo ci Xavi Simone ah, mi nga xam ne jamono ji FC soon ah, actuellement bëgg na ko Xavi mu ngi accéléré ah, pour ñu war ko mën a indiwaat Xavi Simone nag moom dayu mbil gi nee na dafa bëgg delluwaat delluwaat Barça bëgg na ko bañu ko waaye it yamaatuñ foofu jëlul décision delluwaat ci pg bëggu faa delluwaat PSG nag moom actuellement daf ko bëgg a jëlaat waaye bu dëgëree bopp mën na ko ale foofee ca mën naa ni Leipzig wala soit sax mu jaay ko bu ko defee peut-être Barça moom mooy des ak Leipzig mais jamono ji daal pour wax leen ne ne actuellement mooy nu Xavi Simone retour foofee ca euh, club boobee Xavi Simone pare na pour ñëw foofu nee na parewul pour delluwaat foofee ca euh, Paris Saint-Germain nag seen projet bi euh, mën naa ni satisfaire ko loolu la génn di leeral ngeen xamee ko noonu képp koo xam ne ni nag vraiment bëgg nga gis Xavi Simone ca Barça nga bindal ma ko ci commentaire yi bu dee choix boobu du la neex tamit nga bindal ma ko ñu waxtaanee ko mu ngi moo nekkoon xibaar jëmee tey ci ci wàllu tàggat yaram képp koo xam ne nag abonné goo suma chaîne bi YouTube bi bu ko tàyyi bësal bouton s'abonner bi ngay liker di commenter di partager loolu ngir ñu mëna a bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def di leen jox xibaar matin midi soir kon nag bu leen ko tàyyi s'il vous plaît abonné leen ci ñuy abonné ngeen di liker di commenter merci à gis nañ seen taxawaay yàlla na seen jàmm yàgg.